Euh, bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant mboolem ñi fi teew di jël cant geeg nuyoo bépp di ko teg ci loxol sëñ Sidi mi nga xam ne mooy ñu liggéey bi te mat ko sëkk yor ko yoon bu rafet. di siyaare itam soxna Kunta moom Cheikh Amadou Fadel mi ngi nii moom euh, di sa di sant itam ñi nga xam ne ñoo saytu liggéey bi ànd koog ñoom ànd koog sëriñ Sidi ba mu egg si fii tey di ñaan sëriñ Touba gàttandu leen boppam ci liggéey bi. te am nañ ci yaakaar ndax ku gis doxin bi ak liñ fi gis léegi xam ne sëriñ baa ngi ci seen biir ndax bu ma fàttalikoo defe naa ne mas naa fee ñëw 2005 ci ndigal sëñ Saliou àndoon ak sëñ Mamoun ak sëñ Mourtala Bousso demoon ne Sarsara booba doon topp tool demee nii 2005. kon buñ fi ñëwaatee daanaka man booba laa fi géej eh, buñ ñëwaatee fekk mu demee nii loolu sant yàllal ak xam ne eh, liggéeyam sëñ Touba tànk kanam la mu tànk gannaaw. kon nag ñu di sant bu baax te xam ne at mu jot kanam rek lay mën a jëm ndax sëriñ bi kat li waxoon ci barab bi mooy Gabon la doon sonne ak di fa liggéey waaye pay gi fii la ginnaaw pay gi fii la nag gisagun dara ci liy ñëw incha allah yàlla na ko fekkee tatal ko rek barke borom Tuubaa jërëjëf. Eh, barab bi it ñu di ci am mbégte loolu ndax ni ñu ko léegi ci junj daanaka lu mel ni daf day lu am solo ndax léegi bi ñuy gis eh, nataal yee rek am na ñoo xam teelaa leen ma sa teg bët te mëneesuloo na ñàkk xam. ndax seen taxawaay ci yoon wi ak ñu bokk ci njabootu sëriñ bi ba tax na ñu nit lu meloon la ñuy fexe fa Touba ci ndigal sëñ Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér bu ko defee am barab boo xam ne moom it dañ fay nettaliwaat mbirum yoon wi mu nekk musée demee nii li ñuy ñaan tam buñ ci eggee moo am sax ak jàppalante gu am ci diggante fii ak foofa ndax sëriñ bi kat lu bari ci liggéeyam fii la ko defee loo xam ba léegi loolu nag lay tax lay tax nu mën cee jot man ko mën loole faaw ñu wutal ko barab boo xam ne bu dee lu ñu fiy jële yóbbu la muy noonu bu fekkee lu ñuy abal la ñu wane ko fa ba mbooloo mën cee barkeelu ñu dellu si ko ba tey kasaali kenn ka noonu kon muy mbir moo xam ne mun a ñàkk kon bu ñëwee fii yàlla dogal xalaat boobu ak euh, boobu am dinañ kon ndekete dana gën a waree solos liñ doon fexe te ñu bari bari sax xamuñu woon dëgg-dëgg li mu wund jërëjëf tabarakallah